asalaamaaleykum mbokk yi am mbégte àndaat ak yéen ci télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci li ci euh, gën a fës avion bu Air Sénégal di euh, Neo di euh, A330 Neo moom nag paanul directeur général bi jàpp rek ni ay jafe-jafe yu ndaw la ñu amoon dimanche bi la ba tax ay passagers yu waroon dem ca diwaanu Paris am retard bu yàgg sax nag ci seen vol moom nag Philippe Bon di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi ay liggéeykat yu nekk ca centre Talibou Dabo ba ca Yoff di wax jafe-jafe yi ñuy dund saa su nekk ñu ne li ci ëpp nag li ko sabab mooy ñàkk saafuwanteeg li waral doxal li war a doxal kër gi foofu foofule directeur général bu centre boobee ñu ci joxoñ baaram tuumal ne liggéeykat yi dañoo bëgg jël lu ñu moom te moom nee na du ko nangu ay béykatu soble yu nekk fële ca diwaanu Gandiol nekk ca ab njàqare ñu mënuñoo fexe kon ba jaay seenu fa soble toll ci juróom ñett fukk ak juróom ci ay hectares xayma gi nag daanaka ëpp na juróomi téeméeri million ci sunum koom-koom ñu ne li ko waral mooy dañ leen a jox ay jiw yu bon bàyyeekoo ci ab opérateur privé boo xam ne ñu ne nguur gi ci boppam moom moo ko yabala carême bi daanaka léegi mu jeex chrétiens yi door démb ba léegi li ñuy duppee semaine sainte vendredi saint aljuma jile mooy bés nag bi ñu xam ne moom la ñuy defar ay ngalax ca diwaanu Sigicoor ca marché central ba moo xam lépp a nga fa waaye kiliyaan ya ca boppam ñoom ñoo taw a dikk mbokk yi loolee taxañ la ne suuti ñu yaatal ko ginnaaw ba ñu leen nuyuwaatee ba noppee xibaar yi ñu dooree kook mbirum Baye Modou Fall ñu gën koo xamee ci booy Djiné moom tribunal bu Diourbel teg na ko daan benn atu kaso di ko toppee rëcc mu di évasion yëf yaa ngi xewee ñu ne ñetti at ci ginnaaw waaye nag du génn ci kaso ba moom booy Djiné ndax dafa am yeneen mbir yu yuñ koy toppee foofu le keneen ka mu àndaloon def ko muy rëcc googule keneen ka moom teg nañ ko daan juróom weeru kaso yoo xamante tëdd na ko ba noppi tamit waaye du génn moom tamit ndax yeneen mbir yuñ ko toppee foofu le ca diwaan bu Diourbel ñu ngi leen ko doon wax sànq mbokk yi ci ponk xibaar yi lii di Airbus 330 Neo euh, bu Air Sénégal ñu ne nag dafa amoon jafe-jafe dimanche bi la weesu ba tax na ña waroon a dem fële ca Paris amoon retard lu toll ci 10 heures directeur général ba di ci indi ay leeral mu ne nag yëf yi du paan ay jafe-jafe yu tuuti rek lañ amoon ba tax na jamono ji ñoom dafa am ab appareil bu ñu daal di loué ngir muy dem diggante kon Dakar ak Paris moom Philippe Bon seq na ab waxtaan ak Corombaar Ndiaye Pape Sangone Mbaye retard am ci roppalaanu Air Sénégal gi waroon jógee niki dibéer gi ñu génn Dakar ngir jëm foofule ca France ngir dem foofule ca Paris Philippe Beaune daal ci indi ay leeral. Euh, nous avons eu ce qu'on appelle un défaut. tout simplement un défi. jafe-jafe bi ñi ko signalé mu jóge ci cockpit bi ci kanamu avion bi wante it ci ginnaaw muy xeetu huile boo xamante ni ñu ko fa doon xeeñtu lii nag du negguleet ndax compagnie aérienne yu yi sax daf leen di arrivé kon rek tàmbalewul ci A330 Neo. Sénégal mais évidemment au premier euh, rang de ses préoccupations la sécurité absolue nous respectons tout simplement des procédures. moom directeur général bu compagnie aérienne bile indi tamit ay leeral ci xamante ni moom moo di appareil A80 bi ñu loué ngir rek mu mën a amal dem yeeg dikk yi euh, fii ak A330 néo bile di ñëwaat ci seen i yoxo. Nous n'étions pas à ce moment-là certains de pouvoir remonter nos passagers avec le 330. n'est-ce pas. am nag li gën a wóor moo doon rek ñu daal di euh, jamale avion bi ci suuf jëlaat beneen avion loué ko di A380 boo xamante ni la muy jël ci doom aadama takku na te tamit njëg li cherul diggante 5000 euros la ci heure de vol yi. on doit être aux alentours de 5000 euros l'heure de vol. Air Sénégal di xaar ab roppalaan bu bees fii ak weeru octobre itamit bëgg nañoo tàmbali naaw jëmale ci yeneen i dëkk. le deuxième devrait arriver. Euh, fii ak euh, jeexital weeru septembre ci début weeru octobre ñi ngi xaar kon euh, beneen avion boo xamante ni kon day ñëw rek yokk ci li nga xamante ni kon moom mooy ay roplaan yu am ci Air Sénégal su ko defee dem beeg dikk bi gën a mën a mucc ay. nous avons des capacités qui restent. limité fii ak boobu euh, Philippe Bone euh, di jéggalu euh, au nom de toutes les équipes jafe-jafe bi nag ak gàllankoor yi nga xamante ni teg nañ ko suñu ay passager man ci jiital Air Sénégal SA maa ngi ciy jégalu ñëw ñu des ci wàllu woowule ba léegi dara saxul ci kàddu yooyu le la Maimouna Ndoye Seck jébbale lenge ki ko nar a wutu ca ministère ba mu di Aliou Sarr moom moo jiite léegi ministère bi ñu dénk wàllum dem beeg dikk bi ci jaww ji mu ne nag liñ ko dénk dina ko motal sëkk te lu yàggul dara dina woote ab ndaje ci diggante ñi mu seqal liggéey boobule Mohamed Samba ak Aba ñu nga woon ca xew-xew ba. ab joxante loxo bu amaam solo ak mbooloo moo xamante ni sii dañu bëgg lool lii la ñu nemmeeku ci passation de service bi dox ci diggante Maimouna Ndoye Seck ak Alioune saax moom Alioune Sarr nag ñu dalal ko ci kër gi nga xamante ni sii moo yore demuk dikku jaww gi mu doon lool lu mu mérité bu ñu sukkandikoo ci may Ndoye Seck. en ramenant le département du tourisme. gannaaw bi nga xamante ni si moom njiitum réew mi jël na lii di wàllum tourisme dendale ko ak transport bi ba noppi tamit jël la teg la ci boppu bërëb bi loolu dafay wane ni njiitu réew mi moom mu ngi pare taxaw temm ngir rek sukkale Sénégal ak plan Sénégal émergent. Deux secteurs moom Alioune Sarr nag di fësal li nga xamante ni si moom la bëgg amal ngir liggéey bu mucc ayib. Je li nga xamante ni si moom laa bëgg moo di directeur nationaux yi nga xamante ni si ñoo nekk ci secteur bu transport aérien ak bu tourisme ma dajeek ñoom ci fan yi di ñëw ci diggante vingt cinq ak vingt six avril ngir ñu mun a def xayma liggéey bi nga xamante ni si moo ñuy xaar. nous allons définir les synergies entre les deux secteurs. ci loolu bëri na liggéey boo xamante ni si mu ngi ko dëgmal ngir mën a sukkali lii di AIBD. dans quelques mois nous allons. démarrer en ci fan yii di ñëw am na lu ñuy amal fii ci Afrique mooy lu ñu dubee zone de libre échange continentale te Air Sénégal Airlines war na mun a nekk benn royukaay boo xamante ne si mooy jël boobu leen ndam ndax ab concours la bu ñuy amal loolu nag bu ñu ko defee dinañ mun a fexe rek ba ndaw yi am ci liggéey bu ñu jàpp ba dootuñu nekk di jël gaal yi di dem bitim réew. Maimouna Ndoye Seck daal di jébbal lenge yi kii di Alioune saax moom nag jëwriñ ju yees ji. li mu bëgg moo di gën a dooleel demub dikku jaww ki centre bu Dabo di dund ay jafe-jafe ña fay liggéeyee ñoom ñoo ko ji sa bokk na ci nag li ko waral ñu ne ab comité de gestion bu doxul ak ñàkk sàmmonteeg euh, kër gi ni mu war a doxee mu di ay procédure euh, ñoom euh, muy waa centre boobee nga xam ne dafay dalal ay ndaw yu amee laago nag ne ñoom sonn nañu tàyyi nañu ba noppi ñu cay tuumal directeur général bi sa Diallo lañ ciy déglu moom moo yore du liggéeykatu centre Talibou Dabo parce que Talibou Dabo moom mooy tey benn structure ba nga xam ne si sous région bi moom rek moom moom fii toppatoo euh, ay laago ya nga xam ne pour euh, comme ni ñu koy waxee les handicaps moteurs tey jii gis nañ ne Talibou Dabo buñ ko bàyyee. ci euh, nu mu nekkee nii Talibou Dabo dina mujj di daanu directeur bu woowee ay force de l'ordre ñu ñëw ba ci biir centre bu mel nii nga xam ne ay xale ñoo fi nekk ñun bu ñu toppoon euh, policiers yi ne du ñu génn tamit dina euh, dinañu mettre vie enfant yi en danger mais mais effectivement parce que centre bu mel ni ay million bu fiy dugg kon nag war nañu toog ba mu yàgg di saytu centre bi néew ñu kenn jël na lii wala jël nga laa mais quand bu ñu demee ba nga xam ne euh, lu fi nekk euh, dalatul xelu kenn il faut que autorités yi xam exactement lan moo fi nekk. dañoo bëgg nag centre bi ñu tegaat ko ci raay teg ko muy leer lépp lu fi la pour mun a suqali centre bi yow gis nga lii yëpp fu mu nekk nii devanture centre bi ak yi demee noonu di nga dem ba romb tali bu daaba doo xam ne fii sa hôpital la ba nga xam ne dañ fiy fajo ak jiite centre lee di tontu moom ma dem ba Sow nag jàpp ni liggéeykat yi daal dañoo bëgg a gis rek dañoo bëgg a jël lu ñu moomul ndax budget bay doxal kër ga moom lañ jël seen bët rek ñu ne teg ko ca moom Mademba Sow ñu déglu ko ba léegi ak Mohamed Samb ñoom c'est des affairistes qui son arrivés dans le système sanitaire ñu bëgg a jël alalu centre bi saax saaxee ko bon man nag bi ma xoolee biir xool bi te dama leen nag loolu munu fi amee quoi donc keroog ba ma amee ay lu wóor daal si ne ñii leen tax a jóg seen mbiru bopp la ma def ay changement ma changé gestionnaire bi indi beneen gestionnaire boo xam ne wax dëgg yàlla mi may defal liggéey bi bi ma ko bëggee mais nag lii xam ni c'est tout à fait normal une personne nit li ñu la jox soo ko perdee si tu perds ci benn établissement. léegi lu la desee action commando. yàq saboté parce que li nga yoroon yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp lañ ko jël parce que jubuloo parce que maanduwoo parce que li la tax a jóg du faj ñu ay fajkat lañu fajkat rek la ñuy def te boo xooleen tey lu la war net lan moo may firndeel li may wax nii coow li li muy bëri yëpp gisuloo médecin chef du centre. xoolal def naa trois fois audit Macky Sall mooy suñu président bi mu ñëwee dafa commandité audit en 2013 mi ngi ma fekk à l'hôpital de Kaffrine avec l'IGE Mayacine Diong ma am ci cutis bi ma ñëwaatee fii aussi Talib daabo ministre de la santé et de l' sociale ngi bëgg kër yi xam xam kër yi mu yore nu mu doxee commandité na audit fii à Talib Dabo wax dëgg yàlla defal na sutura ñu wutali diwaanu Ndar foofu foofule ak xale yi nga xam ne ñoom la ñu génne woon ci mbedd bi mu di ab opération euh, bu nguur bu Sénégal dooroon am na benn mbootaay bu nekk foofee nag mi ngi rafetlu bu baax a baax euh, jéego yi ci gouvernement bi def waaye ñoom ñu jàpp nag ni euh, faaw ñu defaat leneen lu ci mel ni xale yi ñu ne politique bu état bi dafa xaw a am ay diwaan yu mu lajj bu baax a baax ngi defaraat daara yi tamit ñoom ñu ngi koy rafetlu ñu déglu ci Mouhamadou Adi Ndiaye bokk ci association pour la. la coopération et l'entraide foofee ca diwaanu Ndar micro Ousseynou Diop. Nous sommes engagés à sortir de l'isolement à sortir de l'isolement pour prendre la place en tant qu'acteur du système éducatif. On ne peut pas développer sans les écoles coraniques. Il y a des débauchés. Là. Toutes de débauchés, on peut le trouver dans tous les secteurs. Donc c'est ça, c'est, nous, nous ne sommes pas engagés pour ça, mais nous nous sommes engagés pour le développement du pays. di jëggalu mbokk yi boobu boobule ci diwaanu nasaraan la du ñàkk kon dinañ ko déglu ci yeneen jotaayu xibaar ceena ba nekk ca commune bu Thiès sam na lu toll ci ñaar fukk ak benn ci village yoo xamante ni euh, xàll autoroute euh, Ila Touba bi foofu la jaar ñoom nag nekk ci ay jafe-jafe yu taratar saa su nekk ñuy def lu nekk ngir génn ci ñoom ñuy ñaax ñu gestu leen euh, tabaxal leen foofu lu mel ni forage wala yeneen jumtukaay yoo xam ne soxla nañ ko bu baax a baax reportage Cheikh Anta Diop ak lu toll ci ñaar fukki dëkk ak benn nekk ci commune ab ba génnoon nag doon fësal seen naxaar di dëkk yi di Mbayeen Kër Malick Dieng Mbaaleen jàpp Kër Yoro Sadio ñoom nee nañ génn seen dëkk leen jafe la ndaxte bi ñu tabaxee autoroute Ila tubaa bi romb ba jaar Tubaatul daanaka mënatujoo génn seen dëkk yooyu. tali Ila Touba baa ngi ni ñu jàkkaar lool dafa mel ni dafa dafa xaaj suñu dëkk yi ndax boo seetee commune Thiénaba benn pont bu mag moo fi am boo xam ni. boo yoroon oto bu mag mën faa jaar kon xam nga loolu tamit lu metti la pont ba lee ngay gis ne fii ne bu tawee day am ndox doo mën a jàll bii day am ndox te ñaari pont yi ñoo am ci commune Thiénaba ñoom sax ñu ngi sàkku nag ci kilifa yi ñu utal leen ay passerelle yoo xamante ni daañu fa mën a jaar te it lu jëm ci wàllu courant it néew la nañ ko lool. jógeel fii Thiénaba ba Kell doo fi gis piste de production nga jóge Fandène ba Kër Yaaba doo fi gis piste de production. pourtant léegi nee nañ nu commune ngeen dëkk yi booy seet dëkk yi fi am courant boo ci wàññee juróom-ñetti dëkk ca la yem te am na fi dëkk yoo xam ni poto yaa nga sampe waaye gisaguñ lumière. beneen mbir boo xamante ne yëkkati nañ ko fa moom mooy jafe-jafe bi nga xamante ne am nañu ko jamono yi di manqué ndox ci dëkk bi ndaxte forage bi nàndal ñaar fukki dëkk yeeg benn yi de dafa paan. ci forage su lañu bokk mais forage bi fii ne daf ko dañ koo dagg ba la lu ci bari amul ndox. ndox mi du ñëw heure bu heure yi léeg guddi ngay jóg di di di di wuti ndox dëkk yi bootu ci commune ab Thiénaba nee nañ daal ñoom daanaka benn jumtukaay seen ab commune amu ko ngir jàppale dëkk sant ko gërëm ko moom Cheikh Anta ñeneen ñu dox doxu ñaxtu muy askan wa yeewoo ca diwaanu bari ndondol nekk ca département bu Bombay foofu leen ak ñoom bokk na ci li ñu bëgg ñu ne ab poste de santé bu ñu feebaree mën caa dem faju école yu baax ak yoon woo xamante ni dinañ ca mën a jaar ñu ne ndox ak courant tamit nekk na lu leen yital loolu Babacar Diouf mu nga fa woon ca diwaanu Bombay Brassards rouges et pancartes montées sur des charrettes, des populations de Barindodol, Sessène et environ ont rejoint la sous-préfecture d'Ogoy pour adresser ces mots à l'autorité. si ce n'était que cette route dont nous réclamons le bitumage dans les plus brefs délais, nous pourrions ne pas abattre le macadam. Considérant entre autres di jéggaluwaat ci élément boobu ak jafe-jafe yi ci am ci wàllum technique dañuy wutali rek fële ca Gandiol nekk ca bët gànnaaru réew ma foofe bëri na ay village yoo xamante ni ñay béy soble ci njàqare bu metti lañ nekk jamono jile lu toll ci juróom ñetti fukk ak juróom soble la ñu béy ba noppi waaye mënuñoo gis kuñ ko jaay ci xayma nag ci koom-koom mi ngi toll ci lu ëpp juróom benn téeméeri euh, million li ko waral ñu ne ay jiw yu bon lu ñu leen jox te moo ne ka leen ko jox ab privé la boo xam ne état bu Sénégal moom moo ko agréé reportage Ousseynou Diop ak Habib nekk ci dëkk yi di pelour 1 pelour 2 ndegeet ci commune bu Gandiol ñetti weer ginnaaw ba ñu béyee seen soble gàncax gi nii la mel ñu ni jiwu ba ñu leen jaay moo leen nax te itam jafe-jafe la leen indil. ñi nga xam ne ñoo nu daan jaaye garañ tey muy Tropica CM ñu dem fa ren jënd garañ garañ gi ñu jaay baaxul bi biñ ko liggéeyee gis ngeen ko nii yéen a ko gisal seen bopp. ñu ñuy gisee ni baaxul mooy nii lay def comme laaj lay def. instant bi ñu ngi ci trois mois bi ñu euh, jëmbatee ak léegi bi ñu commencé roose ak léegi ñu ngi ci trois mois quinze jours presque quatre mois te garañ gi gis ngeen ko nii day xar bu ci dem ba am bu am doom gis ngeen ko nii day xar. juróom-ñett fukk ak juróom ci ay hectares ñu bay ko ci soble ñu xayma ko ci juróom benn téeméeri junni ak juróom fukk ak juróom-ñett ñoom nag nee nañu ren jile ay jafe-jafe daañ ko dund ndax seen yaakaar gi yépp ci mbay mi lañ ko tegoon te fii la ñu mujjee. koppar yi ko xaymaa dem na ci. cent 678 millions ci li ñu xayma ci pertement yi ñu am ren. ñaata njaboot ñoo doon dund ci mbayum soble bi fii. amul lu dul mbayum soble zone pelour 1 pelour ba ndëgët ak seen amoo amul lu dul mbayum soble kese moo fi am ñun ñëpp ci soble la ñuy dund. même ñi nga xam ne ñu ngi ci suñu ginnaaw te nekkuñu fii ci soble lañuy ñuy dund suñu ay étudiant suñu ay élève ku ci nekk fii sa doom mu ngi génn di jàng ci mbayum soble la waajuram yaakaar pour di jàppale. dem nañ sax bay talal loxo nguur gi ngir mu mën leen jàppale. yàlla état bi teg pression ñi nga xam ne si ñooñu def jëf ju ñaaw ji ñu mën ñoo delloo suñuy xaal alal parce que suñuy alal lañ ci def taxawaalu ji wuñu sàcc ñu. ñii di bay soble ne ci commune bu Gandiol jamono jii nag jaaxle la ñu def ñetti weer ginnaaw ba ñu bayee soble ñu ni du benn doom boo xamante ni dina ci génn ndaxte jiw bañ leen jox moo jaarul ci yoon Samin benn commune la bu nekk ca frontière bi dox diggante Sénégal ak Guinée-Bissau ñoom askan wa fa yeewoo ñu ngay fàttaliku ñu ne at bañ leen bombardé woon ñu ne armée bu Portugal moom moo doon jéem a bombardé ap base bu PAIGC muy parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert ñu amoon base ñu ne foofule loolee ci atum 1969 la ba tax na kon ren jile dañuy màggal juróom fukki at wala boog dañuy fàttaliku juróom fukki at ginnaaw mbir moomu xewee dañ ciy déglu Ibrahima Ba bokk ci comité d'organisation bi ci micro Bakary ak Khali Samin dafa fekkee ñaari bombardement le 25 novembre 69 euh, ak le 7 décembre 69 ñu bëgg ko fàttaliku du fàttaliku rek pour ne euh, nañ si nelaw déedéet suñu réew yi ñu bokkal frontière maanaam Guinée-Bissau ak cap temps boobu ñu ngi nekkoon si jongante ak seen pays colonisateur muy le Portugal pour que ñu am seen indépendance PAGC PAGC mu doon parti boo xam ne ne moo doon xeex pour indépendance Sénégal pour wax ñu seen doole portugais bi ne suñu de Samin day tax xanaa seen doole bu ñu daan am du dellu bi Bissau du xeex dootuñ ko amati ñu daal Oustaz Samine si wàll boobu parce que lu am solo la pour ñun ñun suñu génération ñu nu jiitu mais surtout pour suñu génération du da rek ne ne euh, dañuy jàmbat rek déedéet du jàmbat c'est-à-dire dañ ko war a jël pour comme jàngat du jàmbat mais jàngat lay doon c'est-à-dire ñu am ñu siy jëlee pour ko suba ñu xam lu ñu koy jëfandikoo pour développement Samine parce que Samine nekkoon na pool économique si Balantacounda donc perdre na statut boobu donc il faut que ñu travailler pour que mu mën a reconstituer kii am son pôle euh, économie bu mu amoon dëmb centenaire bi c'est pour ku parce que dafa am ñu wax ne ren am téeméeri at mais am na ñu wax ne am na lu ëpp téeméeri at Eh, jébbalante leng yi ci diggante ministère yi mi ngi woy ba léegi tey ci suba bokk na ci eh, diggante Mansour Faye ak eh, Serigne Mbaye Thiam Mansour Faye nag ci ndaje boobule daal dinay dëggal ni ñu joxe ci ab nëgëndiku maanaam de façon provisoire Suez ngir muy séddale ndox mi fii ci Ndakaaru ak yenn diwaan yu ko wër moom ministre bi ñu dénk nag wàll wala bokk bi ñu dénkoon wàllum ndox mi fii ci réew mi ne nag yeneen société yi nga xam ne dañoo indi woon seenub dossier may na leen moom kalaame ji ci direction centrale euh, bu marché public moom ñu déglu ko ci micro Mamadou Fall. effectivement service euh, des marchés reprendre évaluation bi bu mu defee évaluation ba pare bu reprendre ko mu jébbal ko maanaam la DCMP pour avis de non objection avis de non objection bu génn na démb bu mu génnee démb maanaam le service des marchés donc la commission des marchés publier l'attribution provisoire loolu nag mooy loolu mooy lan mooy bu ñu ko publier ñu jongante ñu bu leen neexee mën nañu def recours gracieux suñu kontaanulee wala c'est que d'accord ñu am nañu juróomi fan pour def recours euh, en gracieux bu fekkee amuñu lu leen doy maintenant ñu dem recours en contentieux au niveau de l'ARMP et gëm naa ne aussi bu boobaa aussi ARMP dana def liggéeyam mais ñun lu ñu soxal en tout cas man lu ma soxaloon ba ma fi nekkee xëy na léegi euh, sëñ Mbaye Thiam nga xam ni moom moom wutu fii ci ministère bi dana continuer dossier bi ak jox ko àqam parce que lépp a jaar yoon amul dara loo xam ni lu ci jaarul yoon ci dossier bi euh, euh, dana xool bu fekkee yooyu recours yooyu amul ñu continuer ko maanaam euh, ak maanaam le fait ñu jox SDE ñu jox Suez maanaam attribution provisoire comme ça changer le fermier bu fekkee. amul benn jafe-jafe ci wàllum yoon bu ci amul. Mansour Faye kon jógee ca ministère bi ñu dénk wàllum ndox mi euh, jox ko kii di euh, Serigne Mbaye Thiam démb ba léegi lañ door semaine sainte muy euh, kon bés yu mujj ci carême bi aljuma mooy vendredi saint vendredi saint ku ko wax nag xel yi dem ci ngalax boo demee ca marché central bu Ziguinchor foofule moo xam kon tiga dege la wala sax buy lépp nga fa waaye daal clients yi ci boppam la ñu gisagul te njëg gi Babacar Diassi ak Lamine Mondian ci marché central bu Ziguinchor commercant yi nee nañu am nañu ay stock yu doy yu buy ak dégee ngir communauté chrétienne gi nekk di waajal ngalaxu vendredi saint bi. buy en général gars yi di jógee ci àll bi di jógee ay Touba Mouride wala ñii di jógee ay Guinée Bissau ñoo ñu koy indil fii quoi di ñu ko jaay. buy buy am na nag waaye bëriwul noonu quoi comme nam naan bëree at yi moom tabarkal masalaam am na am na moom. ndax bëri na moom fu ni moom insi moom mooy loolu moom moom passe partout am am dama moom suñu sukkandikoo i wax njëg yi yomb nañu lool jafewul na parce que xam nga kilo huit cent lañ ko jaay bu dee par cinq kilos ñu ngi ko jaay CO cinq kilos quatre mille francs lañ ko jaay CO bien ñu ngi ko jaay dix sept mille cinq cent lañ ko jaay waaw dégg moom am na yoo xam ne day lu may wala jawbe 500 lay jar. waaw non par par pot lañ koy jaay. bu dee par kilo la 600 lañ koy jaayee quoi. waaye li leen xaw a jaaxal mooy. gannaaw fan yu dox suñu digganteeg fête bi matul sax juróomi fànn. client yu jigéen ñi feeñaguñu ni ñu ko doon xaaree. non nañ ñëw instant yi ñu ngi leen di xaar nañ ñëw. bu ñëwee li ñu am ko bon ñi ñëw ñu bokk ko ñoom rek comme ñoom lañ xaar kay te ñoom lañ ko fi tegal moom nañ ñëw rek ay ñoom du buy kese tigi dege baa ngi fi ay yi ànd ak ngalax bi yëpp a ngi fi caagareeg ñoom seen yooyu yëpp ngi fi raisin dara manqué wul koko bi yëpp a ngi fi nañ ñëw bu ñëwoon nañ leen wàññi prix jaay lu baax waaw parce que xam nga ñëpp ko bokk moom waaw ñu jàpp ni marché Saint-Maur des Fossés moo nekk marché bu gën a mag bu si bu Ziguinchor baa ngi noonu tàggat yaram tey nag ñu sampaw laaj ndax ab joueur rawatina ci wàllum football war naa moytandiku gaañu buy wàcc li di Coupe d'Afrique des Nations déedéet loolee mooy tontu Cheikh Sidi Ba nekkoon international de football sabab bi mooy gaañu gaañu bi Khadim Ndiaye am Khadim Ndiaye kon di gardien bu Horoya AC ca diwaanu Guinée moom nag Cheikh Sidi Ba gis rek ni euh, professionnels yi li ñu war a gën di def mooy di noppal seen yaram euh, di ko rawatina Cheikh Sidé Ba ñu déglu ko ci micro Pape Fara Gningue parce que soo ñëwee damay programmer kan bi du ma du ma blessé daf naan foofu nañ gën a gaaw a blessé donc il faut ne jouer naturellement ne ne nekk kan bi c'est dans quelques mois donc actuellement lu nekk présent ni mooy sama club sama donc na concentre ce championnat jouer comme ni na daan jouer avant et soo defee daf naan doo am problème mais soo defee sa bopp programme ni dem peut ma jouer te match bi wala match bii di ñëw su ma jouer mën naa am blessure foo nay gën a gaaw a gaañoo blessure kenn du ko programmer dafay métti gérer trop parce que euh, yooyu yëpp entraînement séance d'entraînement yooyu dafay dafay dafay charge bi dafay bëri donc loolu mën a def mooy surtout période de récupération ne respecté récupérer bu baax di am ay séance de massage yu doy tamit ne mën a déglu sa sa yaram yow demee benn moment boo santé na am na benn affaire benn muscle buy xëcc rek na arrêté net bañ a bañ a bañ a parce que sooy forcé rek si ne gën a gaaw sant ko Pape Fara Gningue ñu dalal euh, Mamadou Mouhamed Ndiaye ci li yéenekaay yi li ci yéenekaay yi kon mbokk yi di euh, jéggalu kon du ñu leen ko mën a tegtal euh, tey jile euh, fii la ñuy yam ci xibaaru digg bëccëg yi bu 19h30 jotee incha allah rédaction bu TFM dina fi teewaat yaatalal leen yeneeni xibaar di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm jërë ngeen jëf.